professeur ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci sa teewaay ci yeewu leen bi ni altine bu jot boo ñëwul sax ñun da ñuy manqué la waykat ba waxoon su ma la gisul jooy su ma la giseeree su ma la gisul jooy merci waaw kenn ko way rek ñii ngoyaan parce que professeur dafa bëgg ngoyaan en fait euh, euh, professeur wax nañu ko léegi ni euh, yoon droit dafa dugg torop ci actualité politique est-ce mm-hmm. un mal bu mm-hmm. fekkee c'est un mal mm-hmm. euh, euh, lu ko waral waaw euh, boo gisee ñu fas yéene cee waxtaan rek Pape xam nga ni ko ni nga ko waxee actualité bi temps yëpp droit la droit la droit la. droit waaw a trop de droit de constitution de constitutionnalisme. dëgg la et beaucoup de borom xam xam xam apparaissent maintenant. dëgg la moo tax ñu ñu yaakaar ne rek war nañoo interroger lan mooy jeexitali droit. Uh-huh. Euh, yan rapport la droit am ak société. Mm-hmm. et puis fan la problème bi jógee. surtout mm-hmm. suñu réew muy Sénégal mais dans les pays africains de manière bi nga xam ne moom moo ñuy gouverner très souvent newul dafa épouser wul suñuy valeur épouser wul suñu histoire épouser wul suñu vécu ça veut dire que le problème du ay damay wàññi mandat bi nii de manière ponctuelle mais c'est un problème de fond ça veut dire que nous avons hérité notre droit du système français dañ koy jël calqué ko di fàtte ne droit booba ñun ñuy appliqué français yi ñoom dafa traduire seeni valeur traduire seeni culture traduire 89. la forme républicaine de l' état ne saurait faire de révision. ça veut dire que ñoom allah kulli xaal ba jamonoy tukki ñoom nee kenn du arrière ci forme républicaine de l' république lay mos doon. mais loolu lu ko waral c' l'histoire de la France. parce que depuis ak révolution ba dañoo jël ki nga xam ne nguur moo fa nekkoon. donc boo gisee ñu ne seen article boobu la forme républicaine de l' état est intangible et éternelle. voulez que l' hmm. loolu kenn du ko laam-laamee kenn du ko seet. Hmm. mais loolu également histoire u France la. Hmm. parce que dañoo xeex boo yegg si ci li wax la séparation entre le temporel et le spirituel. mais est ce que loolu méngoo na ñun ñii sénégalais cette séparation entre le religieux. le temporel et le spirituel est ce que ñun màcc na ci suñu véritablement ay valeurs xam ne loolu problème donc lii problème de fond bi nekkul Macky wala diw wala diw autre aspect également important mooy interprétation bi ci li def. Mhm. parce que bu fekkee texte bi dafa ubbi trop ay marge d' souvent loolu mën na nekk ay source de confusion mais lii ndey ji rek mooy encore une fois c' un système juridique pensé par l' pour l' en fonction de leur histoire en fonction de leur vécu français yi dañuy def ay modifications permanentes mais laissé en rapport avec leur propre les pleins pouvoirs mais il ne peut pas modifier la constitution pendant que le pays est appliqué mmh. veut dire que donc ñoom seen droit dafa méngoo ak seen histoire révision yi ñu def c'est en fonction des étapes qu'ils ont franchi avec leur propre ñun daal ko jël indi teg ko fii bu gouverner mm-hmm. mm-hmm. loolu moo indi jiixi jaaxa gi ci euh, gi ñu tuddee polémique actuellement ci mm-hmm. wàllu droit ak ñu mu duggee ci wàllu politique c'est ça jiixi jaaxa boobu loolu moo ko jur loolu rek nga ko jur ça veut dire que mm-hmm. simplement ñun suñu société bi am na ay valeur mm-hmm. boo demee si ñi ñuy wooyee mag ñu baax ñi ku ci nekk newul rek duñu rek ay religieux nit ñi dañ koy fàtte mm-hmm. dañoo teg programme économique teg programme politique teg programme social teg programme culturel ñun ñu ne ko fa ñukk daal dem jëli mbubb ma la daal di ko sol boo paree bëgg a ni kàddu Sénégal mu am stabilité euh, donc bu dee kàddu joxe nga ko après nga bëgg ko basé ñoo xamante ni mhm. ba ñu koy teg seen gëm-gëm ak la xam seen histoire la dund ci ba tey day indi ay jiix jaaxa jaax moo fi indi problème bi mel nii boo demee par exemple bu njëkk euh, je crois la woon booy mhm. prêter serment da ngay prêter serment devant Dieu Senghor mu ngi ko dippee woon ca mhm. dem ba ci biir ñu modifié ko daal ne da ngay jurer non pas devant Dieu mais da ngay euh, devant la nation sénégalaise donc loolu yëpp da lay won très souvent ñun newul ay yoo xam ne dañ ko xalaatal suñu teg ko loolu moom mooy ndax ñoom bu dee Amérique bible la ñuy teg waaw jeex na tàkk d'accord d'accord d'accord léegi fi ñu toll kon tembe ndax am na wuute bu nekk ci diggante euh, droit bi fi ne te am fu ñu ko jëlee mmh. comme ni nga ko waxee mmh. ak société sénégalaise bien sûr dafa am wuute total wuute boobu lan la professeur mais wuute boobu mooy ñun li nga xam ne Pape ni ma la ko waxee léegi moom moo lal suñu société mmh. valeurs yi nga xam ne ci suñu société ci lay dox mais valeurs yooyu dafa méngoowul ak li nga xam ne très souvent moom la constitution bi teg par exemple boo jëlee boo demee États-Unis li ñuy wax fii wax waxet di ko fooyee bu président da ngay amul wax waxeet foofu mhm. alors que ñun fii également suñuy valeur ci lu mel loolu dañ koy fooye xam nga waxoon nañ ko fi bële passé mhm. Pape bés bu kilifa taxawee mhm. ne man maa waxoon lii tey dindi naa ko man maa waxoon léegi rek keroog sa da ngay folli mais ci suñ constitution loolu amu ci donc ça veut dire que il t'est permis en toute latitude nga ne maa waxoon lii génn naa ca maa bëggoon def lii def ma ko fa ce n'est pas en rapport avec nos valeurs et nos vécu kon perte de valeur bi borom xam-xam yi waxtaane fii ci Sénégal ci domaine yëpp la laal ci domaine yëpp la mais surtout ci domaine droit boobu la gën a tàmbe parce que wax dëgg yàlla boo ko seetloo man boobu maa ngi la koy wax ma ne boo dé boo leen dégloo ñuy wax da naan daal droit moom daal c'est ce que je fais dire au droit qu'il dit mais le droit en tant que tel fooyekaay la comme neex nga interpréter ko librement mhm. mhm. ba pare loi yi nga xam ne moom ngay gouverner mu méngoo ak li nga xam ne ñu noonu lañ soxla ko li ñu la bëgg ñu Sénégal lan moo war a nekk kon seen wareef ci fii ñu toll mais li war a nekk seen wareef mooy ñu taxaw refondre la constitution refondre mëngale ko ak suñu bëgg-bëgg mëngale ko ak suñu cosaan suñu aada ak suñuy valeur comme mhm. problème bi rek mag ñi laataa diine ngoro fi nekkoon donc ñoom jàngal nañ ñu yoon jàngal nañ ñu yoon ngoro fi nekkoon jomo fi nekkoon sàmm sa kàddu fi nekkoon dogu ci sa moo fi nekkoon lépp a fi nekkoon mhm. mais malheureusement loolu yëpp dañ koo bàyyi teg ko fële pourquoi parce que dañoo jóge ci colonisation daal di hériter des tubaab leur système juridique et leur mode de fonctionnement dinañ mais en tant que tel loolu newul li ñuy dund parce que ñoom ñëpp boo demee ci Cheikh Anta bind na téere bu wooyee pour un état fédéral d'Afrique noire mm. mu daal génne sur le plan économique sur le plan social sur le plan culturel parenté yi nga xam ne moo am génne valeur fondatrice yi nga xam ne moom la ñuy dans l'espace ouest africain wane ni mën nañ cee teg charte daal ko doxe mais ñu ko ñu ngi ca la teg la soppeeku na Sénégal am indépendance mel ni ba léegi Sénégal dañu ko coloniser. mais du Sénégal rek africain yi ba léegi la ñu coloniser. Mm. parce que euh, la colonisation ba nga ko jógee mën nga ko transformer en force créatrice. Mm-hmm. ça veut dire quoi nga xam ne yow histoire bii nga jaar nga am la nga cee jàngat pour mu permettre la nga xool ni li nga war a mën a soppi nga soppi ko mais malheureusement dañ jóge ci colonisation boobu dugg ci benn colonisation mooy cette colonisation mentale et intellectuelle on mais dans nos consciences encore nous sommes relevables de l'Occident ay ca xale yi professeur qui est habilité à changer la constitution. kan qui à changer la constitution. def ko de telle sorte que mu référé wu ci suñuy mœurs ak ñun suñuy tradition. qui est habilité à réformer la constitution c'est le peuple lui-même. Mhm. le peuple en la personne de ki nga xam ne moom lañ fol. Mhm. moom moo war a taxaw mu ne ñun kat coow li bari na. Mhm. disposition législative boo ci indi ñu daal di ko contester. mu ne kon yéen ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci droit. ñu boole ko kilifay diine yi. kilifay aada yi daal di refondre constitution bi mooñaat ko article par article mu méngoo ak ñun li ñu doon bu ko defee doon dootu jubal ci loolu li nga gis ci Sénégal ni mu constitué actuellement est-ce que vous pensez que war naa war a mën a nekk léegi léegi mais war naa mën a nekk c'est une question de volonté tout court mm-hmm. il suffirait que le chef de l'État mu taxaw mu constaté mu ne mais le seul problème au Sénégal c'est problème de droit mm-hmm. président bu fi jaar muy euh, Senghor firnde mooy encore une fois cette constitution là elle n'est pas nôtre le chef de l'état bu convoqué léegi nga dem ci religieux la chef coutumier yi chef traditionnaliste ne lii mooy valeur u Sénégal article bu nekk nga bindaat ko mhm. en fonction des besoins des préoccupations et de nos valeurs mais jàmm na ñooy mhm. une constitution elle n'est jamais imposée elle mhm. ne tombe pas du ciel elle traduit le vécu de tout un peuple ñu ne li ma la wax exemple li ma ñu ne la république cette forme là elle est intangible bu abadam donc ñoom article bu ñu teg lan moo koy mel ni histoire vécu du peuple français mais pourquoi pas ñu def noonu. professeur on finit avec les mots si je vous dis droit au Sénégal. si vous me dites droit je dis euh, des confusions dans lesquelles personne ne se retrouve finalement on a le sentiment que le que le droit n'est qu'un instrument que l'on manipule en fonction de ses intérêts. constitution. boo ma ne constitution ma ne charpente sur laquelle repose le vécu politique d'un peuple mais malheureusement cette charpente là elle n'est pas faite en fonction de nous par nous et pour nous. société sénégalaise diggante démb ak tey. la société sénégalaise elle refuse d'être ce qu'elle est pourquoi elle refuse d'être ce qu'elle est parce qu'elle se laisse gouverner par des valeurs qui lui sont totalement étrangères. c'est moi qui vous comprendre professeur day mbi fa foore xel en fait <laughs> da lay mbi fa foore c'est-à-dire quand il parle tout le monde se c'est la seule rubrique où yéen ñii seetaan ngeen comprendre ko pas vous êtes comme ça vous vous concentrez sur ce qu'il dit loolu moo tax ñuy faral di wax naan yeewu c'est la seule matinale qui vous réveille et qui vous éveille parce que ñun ñaar la ñuy boole yiy jëriñ ak yiy bégalee Mamadou Mouhamed Ndiaye ma ngay wàcc pour revue